Dakar, notre plateforme d'information. dalleen ak jaam waax ci son yi bu télécom bi nga xamante ni bi daf doon inauguré ab boutique am démb ci Parcelles Assainies moom son yi bu télécom boobu day profité na ci boob la inauguration rek daal di tontu ci humiliation bi nga xamante ni bi Wally Ballago Seck defoon na ko fa ca Baaramundi son yi bu télécom la mu wax rek nee na ab humiliation amu fa ndax nag la ko waral mooy Wally Ballago Seck dafa taxaw ne ko baatreel sama ay musicien ku nekk cent mille te boobu sama yaram dawul la ma wax Wally Ballago Seck mooy way ma ba sama yaram daw yow ma ku nekk saam lu ko mooy itam amul dërëm boo xamante ne bi dinaa ko génne di la ko jox ndax nag joxe yëg-yëg la te it nag li ma yor maa ko moom bala ma ko joxe dama koo sentir sentiru ma ko woon defu ma li képp la amul lenn loo xamante ne bi dinaa ko ci toftal li wéte wóor mooy wali balaa ko sekk di amul lenn lu ma ko jàppal ndax it nag bi mu fu ñàkkee waajuram dem naa ba këram jaale ji ko ba ma demee itam fekkuma ko fa amaro la batale samam jaal li wéte wóor mooy ma yor maa ko moom te itam saa su nekk rek képp koo xamante ne bi way nga ma ba sama yaram daw dinaa ko yëkkati jox la ba laaj ne ko de li nga def Wally Ballago Seck defoon nga ko baayam di Keba moom itam mu way la ba yaramam te itam amul lenn loo xamante ni bii rek joxe yëkkati naa jox ko nit ku nekk la nga tollool ci man ma way loolu yi képp jox son bu télécom profitoo na daal gërëm ña nga xamante ni bi ñoo teewoon ca immigration gis fa ku ni Pawlish Mbaye mu ñëw tam daal ne bu télécom moo ma woo téléphone ma wax rek ne ma lépp loo xamante ni bi jox Wally ko jox Wally Ballago Seck waaye yow mi Pawlish yow laa koy jax Pawlish Mbaye itam jëli kàddu daal di defi témoignage ci ki nga xamante rek moo di Souhaïbou Télécom daal di ko seedeel daal moo mu daal yëkkati ay kàddu daal wax rek ni Aïssatou Penda Diop day ku may dooleel la ku may jàppale la waaye itam ku may soutenir la ku yëkkati ay millions di ko def ci la bu weesoo xelal gi nga xamante ni bi mi xelal mi di yëkkati dooleem di ma ko defal saa su nekk Aïssatou Penda Diop mi ci Feeling Dakar la grande voyante son yi bu télécom de yëkkati na seede yu mel noonu jëmale ci moom keneen koo xamante ne bi yëkkati na ay seede jëmale moo di soxna Aïda Saliou soxna Aïda Saliou rek mu wax sama yaay la yaay itam ku may jàppale la ku dooleel la nit la ko xamante ne bii ba may door ba tey mi ngi ànd ak man ba koy laaj itam moom son yi bu télécom ci ki nga xamante ne bi rek moo di Cheikhouna borom Carrefour business bi nga xamante ne bi moo di ab concurrent daf ne nit ne bii naw naa ko ndax man jàmbaar dëgg may topp te itam borom fit dëgg moo may topp ku amul aw fit dooma topp li wér te mooy sony bu bu weesoo bi ñu daal di fa teew keneen fu mu yëkkati ay seede rek wax diggam ak ki nga xamante ne bii rek moo di sony bu télécom wax ci aw tiis woo xamante ne bii rek dafa dal njaboot ak ndem si yàlla Ahmed Amar doomam ji nga xamante xamante ni bi moo di Beydi Amar moo ñàkk bakkanam ca benn appartement bu nekk som fa lañ ko fekk rek mu faatu moom Beydi Amar lii la day di moo xamante ni bi daanaka ci ay circonstances yu doy waar ci la génn àdduna moom Beydi Amar daanaka fi mu nekk ni corps ba rek ñu ngi ko yóbbu ca hôpital principal bu ngir di ci defab autopsie ngir mën a xool nag dëgg-dëgg moom Beydi Amar moom ana lan moo yóbbu bakkanam boobaak tey nag ku ci nekk rek yaa ngi yëkkati ay kàddu di wax naan lii ko rey mbaa lee ko rey waaye nag li wétte wóor mooy amaguñ ci lenn loo xamante ni bii leer nañu Feeling Dakar en tout mi ngi topp rek ay a xam dëgg-dëgg doomi Ahmed Amar ji ana lan moo ko faat ca appartement ba ci fàttali rek Ahmed Amar mooy seen ba moom mi nga xamante ne bi moo jur itam Dame Amar ay at ci ginnaaw moo nekkoon bi Iba Thiam la ñu koy Iba mujjee faatu ñuy wax naan overdose akaray loolu nekkoon nag mbir mu tiis moo xamante ne bi itam Sénégal dundoon nañu ko tey jëlee mbir mu tiis ba tey ci faatu ki nga xamante ne bi mooy di Beydi Amar Beydi di doom ci Ahmed Amar wax ci Wally Ballago Seck mi ñu doon wax naan day bàyyi waayam Dubaay bàyyi waay Wally Ballago Seck day fi mu nekk nii daanaka mën nañoo confirmer ni du bàyyi waay ndax it nag bu weesoo sortie bi nga bi Baye Zal def na ko ngir leeral am na ci ñeneen ñoo xamante bi ña ngay génn di leeral bokk na ci doomi Thione Seck ja bi ma ngi France mu di Fat Fall Ballago wax na day ne Wally Ballago Seck bu doon bàyyi du ci ay réseaux sociaux la ñu koy yëgee te Wally Ballago Seck ana lan mu war a bàyyi waay continuer ab liggéeyam kon nag kii nga xamante ne bi moo di doomam di ab relève am di Wally Ballago Seck tiis wu man di dal ci kawam bu ko dundee ba mu jeex rek dafay continuer ay waayam li wéttéwoor mooy ñi ngi woy rek di continuer di ñaanal ki nga xamante ne bi moo ji ajaratu Kiné Diouf Diaga mi nga xamante ne bi ñu ngi waajal rek quarantième jour nga xam ne daanaka ñaari fana ci des waaye loolu yëpp bu weesu gëm naa ni Wally Ballago di Fat Fall Ballago daal di def rek ay photo yoo xamante ni partagé na ko fépp ci réseaux sociaux yi ay photo yu jongama yoo xamante bi mi yëkkati ay kàddu dal ci bi ab artiste guinéen la nee na day scandale bi nga xamante ni bi def na ko fii ci AIBD ak ñi nga xamante bi ñooy takk der fa nekk loolu du respect te itam waru jóge am réew ñëw ci réewum Sénégal di fi am scandale ak suñuy takk der loolu du respect te itam du dëgg du yoon loolu moom en tant que artiste lu mu mënoon a la ka wax lu ni mel moo di nit dof wax ci Macky Sall ak dialogue bi nga xamante ni bi tey ji la koy ubbi ci altine ji waaye day li doy waar rek candidat yi daanaka seize candidats ñoom ñëpp dañoo bank seeni loxo nee na dañ booba dialogue duñ ci dem tey tey itam duñ ci dem ëllëg waaye vingt cinq nee nañu boobu dialogue seen yoon nekku ci tey itam tey ji ci altine ji bu onze heures jotee dinañu dem rek fa nga xamante ni mooy conseil constitutionnel fas yéene dafa kalaame ji ki nga xamante ne bi moo di président Macky Sall ngir mu amal ay élection ci réew nu mu gën a gaawe waaye nag wër di dialogue ak Macky Sall loolu ñoom duñ ko def tey tey itam duñu ko def ëllëg lànk ndañu kandaare keneen ko bañ ba tëdd ci naaj wi moo di Pape Djibril Fall moom itam di candidat ci élection yi 2024 yi Pape Djibril Fall day nee na boobu dialogue moom itam yoonam nekku ci du ci dem tey du ci dem ëllëg Bougane Gueye Dany wax na ca dialogue baag la ca nee na de li nga xamante ne bi dëgg-dëgg moo am ci Sénégal gàcce la lu ruslu la ndax nag budget 40 milliards boo xamante ni bi danu koy fawee di ko caxti-caxte waajal yi élection ba mu neex ga nga fomm ko def lu la saf man Bougane Gueye Dany day ànduma ci tey te itam ànduma ci ëllëg li nga xamante ni bi nag moo di dialogue bi itam sama yoon nekku ci ndax man daal askan wi rek laa fas yéenee àndal saa su nekk askan wi lu nu wax man Bougane Gueye Dany lii laa wax jeexala kook mbir mu doy waar ma xamante ni bi moo xew rek fa nga xamante ni bi moo di barkeeji barkeeji day benn waay bu sant saw moom la ñu faat bakkanam ka ko faat nag bokk na ci benn pa ak doomam ñoom daal ñoo jël waaji daa door ba mu dee la ko waral mooy waa ji dafa ëmbal seen doom. tuus ak agent bi muy tax xale bu ndaw bi. Tu es ma rose au milieu de l'oasis qui demande son soleil et je suis soleil. waaw mais demal sa kër baay. dégguma sama kër ba dara du woon dara man ak Lamine Ndiaye. xale bu tuuti jógee fee xamul li ma daj. yow yaay jiite jàmm ji jàmm am jiite woo jàmm ji du ma puus du ma paas duma ma fay du tas fii laay toog di leen lëjël mel ni téere ja seen kanam. mag nag bu amee fulla moo ko may boppam. da nga génnoon wuti ay cumukaay ma génne wuti ay cumukaay. bëgg naa lii leen de nit de defal boppam de. yow nee naa la maag yow fekk su luñ la duma la bàyyi. l'erreur vient de moi léegi li mu lay ñaan mooy. Mor sax yemul yaa ngi